Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen nag ñoo ngi Lamsaar jàmm gën Caaroy Sicap Mbao ak kan Feugeuleu mooy def open press ngir lan dimanche digganteem ak double moteur arène nationale Assane Ndiaye fa jaar bëgg naa la. waaw maa ngi lay fay. noo tudd yow. Fatou Sarr. looy wax double moteur. double moteur da ko wax rek xam ne indi lañ ko mbër. mbër lañ ko indi waaw na xam loolu waaw. pour dimanche. dinañ ko teg lu métti ak foofu la rek lim préparé dafa ëpp ci pour double moteur. yaa wax double moteur taxu ñoo jóg. waaw Rebeuss ngeen di bëreel de. fii waa Lamsaar la yoole rek amul amul seral. amul seral waaw yoole rek. kon Talla Ndiaye mu ngi noonu. nañ dem ñu xool ci biir. Amadou ci Amadou Amadou wóor ma Amadou ci Amadou yi wóor ma Amadou yi ci Amadou yi wóor ma Amadou yi ana ñu bëgg Cheikh Abdou Karim Mbacké waay defu leen nii seen loxo ci ko xool wóor ma ana doom loxo yi waay ana ñu bëgg fëgal la waay ay waay ana ko bëgg ana ko bëgg ana ko bëgg ana ko bëgg ana ko bëgg ana ko bëgg ana ko bëgg ana bëgg ku bëgg fëggal sa loxo jago waaw ana waa Mafia bi ana ñi jàpp ci yakkutal fecce muy nekk tot fa waadi kaay ginne te te ginne te ginne suma lambar lambar suma lambar lambar ngeen di wax Double Moteur. Double Moteur moom na def naa nga rek fogal dina ko duma daan ko. yaa wax lii man maa wax loolu man Abou Ndiasse. taxe looy wax yow. bu paree aal ko taxe wala mu aal ma ko rek. non Double Moteur amul lu ñu wax moom. parce li ko war xam na ko. te lépp li si war def na ko. contact na entraîné na te combat bi mu bëgg la. di koy ñaanal nag ndam lu yaatu. après su paree nag nañ ko jox ñu jël suñu wàll. nee ko ren bëgg naa la. Ah, fay naa la bu baax a baax. Double Moteur Feugeuleu ngeen war a bëre dimanche actuellement boo amoon tey yóbbante boo yóbbante Double Moteur ak waa Rebeuss lan la. dégg naa ko muy naan moo ko ëpp doole moo ko mun mais day nax boppam bu ko Feugeuleu jàppee moo xam ne lépp du benn ba mag du benn moo ko ëpp expérience lamb moo ko gën a lamb bu yaakaaree si si di mun bëreem mu ngi nax boppam. mais côté doole bi yow amoo loo ciy xalaat. non amoo lu mu ciy parce que koo xam ne chaque jour mu ko la. Ah. kontaan ah, seen grand frère di bëre dimanche ak double moteur lu ngeen di wax dëgg la moo tax lamb ji fi mu ko teg moom dafa sori parce que loolu laay wax gars yi sànq nee nekk nañ lu ëpp 15 ans mais lamb ji fu mu ko teg musuma gis mu teg fa lamb bi jaraluma ay fen moom combat bu ne préparé nañ ko man moom mais fi mu teg lamb bi double musu kaa teg ci benn lamb yaa ko wax de gaa yee ko wax de gaa yi ñoom ko tuddee yi waaw ndax loolu dina leen jaaxal loolu du leen jaaxal fëgal maam ñoo bokk jour bi ñu bëree premier combat ñoo bokk bu premier combat premier combat mu moo tax naa sax du ma mën mu naa mu ne dina duma fëgal ko gën a foofu noonu li ma dencal na kumpa la bu ñu yàggee ba foofu noonu dinañ dindi kumpa bi mu gis ko kon kele bi yow yaa ko yor non mun na nekk man mun na nekk moom moom moom jartu kii parce que moom professeur la sax dañ ma baaxee professeur waaye moom sa professeur la ah. waaw kon xalaat non li ñun bu méttee préparé nañ ko bu gaawee suñu bénéfice la waaw kontaan ci yow leer na <laughs> jaajëf rawatina gone gu ndaw te mag lu jëndi ragal gi juddoo ci ndox mi yoroo ci ndox mi yaayu doom yaayu fagal bi na lay da yi bu la jotee da lay daan dal dimbali leen ndaw ñi Babacar ñu ngi lay fay sant yàlla di julli yonent bi di sant suñu waajur bu baax a baax a baax suñu yaay di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kanam di ñaanal suñu papa fu mu tëdd ci suuf Touba oyof ci kaw di ko ziar bu baax a baax a baax di bëggee képp bu dëkk Lamsaar Tiwaawan Fass Mbao jàmm gën Sicap Mbao di gërëm ñëpp di gërëm mafia mënër bi bu baax a baax a baax a baax di leen bëggee bu wér waaw sëñ Fall Feugeule la actuellement bi ay quelques jours a ci des. fi mu nekk nii bëgg bu baax a baax man bés du rëy ci man. takkusaan ci man rek yàllaa maanaam sama rakk yi ma yàlla booleel moo tax bis bi rëy ci man. mais maa double moteur du làmb maa double moteur du làmb te la setee Sénégal xam ne du làmb li ma bax baxu ko. li ma ngeer ngeeru ko darajey Serigne yu Mbacke dama ne woon du ma wax ak moom am sew yu ma dégg moo tax may wax ak moom après ci guddi ga dinaa ci wax ak yow mais dama ne sama tur tànk yi ñi nga xamante ne samay morom la ñoo maase ma fi am mën a rëbi bàyyiwuma kenn Pambu Duuru gars yi bàyyiwuma kenn Mbay Jaw ma fi yaa bi aw ma seen fay yàlla na leen yàlla def mag mu am ñam man su ma neexoon ma bàyyi làmb am naa lu daax làmb xam nga suñu grand frère aaya américain magu mafia bi lu ñu nekk mu nekk ci ñu koy sant bu baax am na sama grand boo xamante ne nii xam nga moo yor sama lépp léegi dama doon bañ ma tudd ko mais jaam la sant ñi ci des dinañ comprendre maa ngi koy sant bu baax bugul ma tudd ko sax ci ay presse mais daf may teg ci code di waxtaan ak man moo ko teeloon am ci làmb dépassé naa fii mais maa ngi koy sant bu baax ak Matar Ndiaye Madaar Ndiaye maa sant bu baax a baax a baax baax Madaar Ndiaye dañu gis ah. man nekkuma fi pour Jokal nekkuma fi pour Double Moteur dama fi nekk pour làmb li ma def ci làmb ku ko xamul man xam naa ko duma gan ci làmb dama ne la ñi ci kaw su ma jëloon seen avance sax lijjantiwuma leen waxuma laa booy bi dugub bu démb ci làmb yaa ngi dégg mën a rëbu mag bi mooy génn dama ne la du puus du paas du maag moom te su ma paree ci moom dama ko waxoon ci jokel duma ma ko daan ba zibile du ko daan ba zibile sayu matt bi nag ñëw na comme nee na su ma ko daanee mu taal boppam na préparé dinaa ko indil sayu matt estat. est-ce que mën nañoo xaar fëgale bi nga xam ne moo jàppoon Saalum Saalum dëggal ko lu xotteeku jàpp koo xaar. lu raw loolu lu raw loolu. maanaam lu Birahim 2 dajoon ci làmb rek. lu raw loolu combat Birahim 2 fëgala. xaar leen ko ci combat bi xanaa leen na koy dimbali. arbitre sifflé rek mu daw génn saaku yi na ñibbi naa. mais day jël day buy bëree day jël taawam buy bëree yow ngay waaxu euh, say adversaire est-ce que bu jëlee taawam. fan yi lakk jël lañ xewal xam nga lakk jël da ngay jël sa temps bu jëlee temps moom mii xale man mii mag ma jël sama temps fan yi chaque dimanche ñu lakk jën te lakk jël da ngay jël sa temps ub ko dem toog ne su jëlee temps moom mi bëgg dara ma toog xaar ko non moom nee na ma taxaw mooy def lépp mais xam nga di bëreeg fëgal la na taxawal maay def lépp nekk ngaaka mënul weesu lool fëgal la nga xam ne mënul xaar nekk seer mënul weesu lool bëreeg fëgal naan ko taxawal xaar maay def lépp tam leer ma ne maa ko daax a fecc maa ko daax a bëre maa ko daax a xeex. waaw pourtant man bi waaw te xeex bi ngeen di wax ñu naan xeex bi xeex bi dana xam nga làmb doole lan moo koy indi. da ngay am moyen di entraîner bu baax. yaa ko non waxuma moom ci moyen man laa wax dama ne doole li koy joxe da am moyen di entraîner bu baax di lekk bu baax am ku baax ku lay toppatoo ngay am doole. ma dem Amérique liggéey li ma liggéeyoon du pour moom da cee dal nii rek fin saison ma jël ko te bu arbitre dina xam ne moom puusul paasul maa dàq bëri maa dàq dama ne la xaaral xaaral xaaral dama ne la dafa am mafia bu jóge Mbuur nee nañ rang muy gaaw. moom dafa bokk ci rang bi nay gaaw rek du seet leneen. Uh-huh. non mais ay adversaires yi bari nañ ñu may wax adversaire ñuy wax prix yoo xam ne kenn du leen ko fay ma gën leen bokk ci làmb xam nga li ma la dagg billet dem Amérique entraîné ji xam nga nekk su may bagage ñëw su ma toogee bëréewu ma perte maa la te làmb làmb lañ wax boo bëree mbër nga boo bëreewul doo mbër moo tax liggéey nañ li ci war

fëgal la laa tudd ñoom ku ñu wax keneen loolu ñoom ak ñoom la. maanaam dañ lay daan dem ci ñooñu. lijjanti man waxuma ay waxi loolu man lijjantiwuma keneen dama ne la. sama bopp laay lijjanti ak moom moom nag bu dee day lijjanti keneen. loolu affaire am la. mook ñooñu la. mais dama ne man bis bu paree ci man bu tëdd këram. dina xam ne yaasa day sab soble. yaasa day sab soble. mën a rë. nga xam ne bande la. Ah, ku la xam a baax mën a fecc li ñu répété yëpp sax xaju fi parce que Babacar xam moom dafa yàkkamti moo tax sax moomu pax tabax tabaxee moo tax ñu tabax mais li ñuy bu ñu entré arène nationale ñu ngi fay doog a bëri c'est-à-dire Sénégal yëpp bëri nañ ci dañ fay indi loo xamante ne rumeur lay doon. ah Babacar xam nga ma yàgg nga ci làmb fëgala bu demee fëgala bu demee bay moytu yaxee Joob yëgee ni mu seeti la wax ma la mobilisation bi mobilisation bi non arène nationale à domicile la lam saar tiwaawoon maa ngi leen woo ci bés bi ñu xam ne seen doom moo xewle instant yi nii ñoom war nañ xam ni fëgalam yi ak fëgalam woon du benn yaa ngi dégg lamsaar tey mën naa ne du yàlla defee jàmm rek ak salaam dinañ gis beneen xar kanam lamsaar bu bees tax te man maa koy woon samay rakk ñu taxaw ci loolu waaw. sa digganteeg Saalum Saalum da nga ko kaaw. waaw est-ce que combat bi mën nañ cee da koy gaañ bàyyi ma jàpp ko daan ko rek. daan double moteur jàpp maa ko daa ko bëre moo tax jarul yàggal bàyyi ma jàpp ko rek. public bi kontaan tuuti daan ko boo ko dóoree mu daan gars yi dañu lay jébbit seen ticket du feeñ. mais xale bi mu doon ja xale ma xale xale yaa ngi def lu mag ñu dul def xale amul ci làmb ji mooy xale amul ci làmb ji moom dafa jeex ci diggante bi sax te dangaa jeex ci dama bëggoon nga gën a rëy moom moo may arrangé dama ne la rëbës dama ne rëbës amul bande bande yi nekk rëbës yëpp banlieue lañ dëkk maay wax ak yow ah. dañuy ñëw arène nationale dañuy yaru ñu daan leen gunge leen ba pompier bu ñu yaruwul ñu duma leen ci biir duma leen ci biti ñu ñibbi nee na ma nag fi ñu mujj mooy nee na ma da di dem ay supporter am ne la mayal booy yi li ma leen wax dama leen ñaanal wax ji na ko wax dama tax ñu ne ma fële lii man lu ma waxee supporter ma ñaanal leen ñu ruux. ñaanal leen ñaanal leen kese ñaan bi rëbës dugg seet sama grand bi may seet génnaat. maa ngi sant Cheikh Ibrahima Diop bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jaamu ak Xudu Saw yàlla defal leen jaam manoore di bëggee Lamsaar Tiwaawoon yëpp yaa ngi dégg waaw mu loolu garaawul ñëw na Samsung 3 moo lu fëgg la dàqe ji ko kon sama la Pape Samb maa ngi koy bëggee gis naa ko waa mbaar mi waa mbaar mi ñëpp xam nga sama gars yi maa leen di bëggee di leen wax gars yi xam nga dëkk bi dëkk bi dafa neex parce que am nañ lépp mais nañ ñaanal suma rakk suma rakk yi ñoom Laayja ñoom Père xam nga gars yi signé quoi ñoom Alain booy bàyyi ma kenn Sidia Papa Joola nañ leen ñaanal sama baay faal yi mën yëpp maa leen di tudd di leen bëggee ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm bu loolu damay woote yaa ngi dégg di woo waa Espagne waa Bilbao nga leen ñu yónnee bi yéex na lii paa gars yi dañoo war a jënd ticket waa amerique Bobo Fall suma gaan suñu doomu ndey waa Jey City alaaji maa lay ñaanal mission bi nga dem yàlla defal la jàmm gis naa xaalis bu bari na trop maa lay bëggee alaaji Jey City di sant sa yaay bu baax gërëm suma yaay yaa sagar père Bidjël père Babacar bàyyiwuma kenn maa ngi bëggee Jey City yëpp waa New York 116 di bëggee ñëpp waa Tëngéej Asalem bàyyiwuma kenn Caaray Géej Fass Mbaaw bàyyiwuma kenn waaw maa ngi gërëm nag koo xamante ni nii aw ma fayam muy Baye Fall bi ci rukk bi muy joo maa ngi koy bëggee bu wér daf may jàppale bu baax te mënoon naa ko fay ay millions mbëri nii ngeem ay millions lañ koy fay man daf may bindal di ma jox maa koy sant bu baax joo yàlla may ko wér gi yaram ak gudd fan yaa ngi dégg Omar bu Géejawaay Omar Baas gis naa jàppale bi bàyyi naa la ak Serigne Saliou mi ñu naa la ak jàppale bi maam Ousmane Touba sëñ Abdou Karim sëñ sëñ baaraay sa maam waxal ndam le rek ma jëli ko ci kàttanu yàlla su loolu weesoo gërëm naa lam saa Tiwaawan ñëpp di gërëm Baye Magay juróomi doom penda naar yi Cheikh yaa ngi dégg ah, Cheikh Baye Magay ah, Cheikh Cheikh Baye leen bëggee ñoom ñëpp pression bi ay bari xam nga gars yi ñi ci jàpp dafa bari waa Malien yi lu ma di bëggee ñëpp xam nga Xaadim Maar xam nga maa ngi bëggee ñëpp gars yi bàyyiwuma ñoom xaarit maar ñoom. su ma xarit su ma lépp di sonn ci man su méttee laa koy gën a gis bu neexee sax du fi jaar mais su méttee Yankuba maa ngi koy bëggee bu wér damay déplané wu sax bëggee naa ñëpp tonton aaye sama gars yi rendez-vous ba dimanche a meneureuse yu jigéen ñi maa leen gërëm jine soxna Diop laa tuddee bés bi mu def ci lépp ku ñëw ci départ bi xam ne lépp dëgg la sant naa lam saa teewaawoon ñëpp bàyyiwuma kenn meneur yu ndaw yi tamit